askan wi yeewoo ci commune am Mamadou Thiaw moom mer na ba futtu ci li jëm ci 300 hectares yi ndax moom moo ngi joxoñ baaraamu tuuma entreprise yi liggéeyee ci boobule gox lu at ba léegi ñoom dugaluñu seen loxo benn yoon ci luy sukkali gox bi. suñu doole mooy loi bi le maire à suñu doole mooy loi bi ay procédure ak ay masamba ak ma demb wuy yooyu c'est après waaye tool bee boo fa ñëwee indi machine tey bëgg ni da ngay gas. buñ la dàqee keneen ñëw buñ ko dàqee dinañ ñëw ñu toog autour d'une table. jigéen yi liggéey ci yooyee tool dañu leen di exploité ak i tamit lépp lu jëm ci coowal suuf am na doole lool ci taset ak li ko wër tax na ba jaraafu dëkk bi moo ngi ñaan askan wi ñu booloo waxtaan ndax ci waxtaan li lépp xaj ba ñu mën a lijjanti li ni mel. na waa Mbos naax jóg waa commune bi jóg ñëw ànd ak man bala faa nit a dugalati gupp wala bala faa nit a dugal machine. ay kayit neex na waaye population bi ñopp doole fuuf nee nañu ña fa nekk 2500 lañ leen di fay 2500 ngay commencé kañ 7 heures mais 7 ba 6 heures ba 15 heures suñuy yaay suñuy sœur góor ñi sax dañoo lànk demuñu ba tax na kii di du Thiaw nekk maire commune bu taset waaye tamit nekk secrétaire exécutif bu programme national de développement moo ngi ñax état bi mu dimbali leen ci li ni mel moom yemul foofu ndax moom ak askanam fas yéene nañoo taxaw temm aar seen suuf ba képp ku fa ñëw bëgg a exploité di nga wax ak ñoom lu leer